màggal xarañteef bu lycée Mariama Ba doon li gën a fës tey nag ci gaawo mu doon ab cérémonie bu am solo lool. avec ay not yu baax duguleet ñu koy daal di gis fii ci lycée bile ñam nag bégloo seeni waajur itam ki ñu tuddee école bi Mariama Ba. te sama mag yi fi nekk ñoo nekk di ma wan yoon bi. Ah, ñun lañ teg yaakaar bi ñu ñoo jigéen ñi war a euh, gérer suñu réew euh, ëllëg kon loolu mën nañ ko def dañoo war a gëm suñu bopp. ay mensonges yuy tegaloo. rax ci dolli ñett ci ñoom ñu daal di leen jox ay billets ngir ñu daal di àggale seen njàng ca bitim réew ñëpp nag ñi ci jàpp bëgg lool ñu daal di porox ndoolu ci bés bi itam daal di jagleel ab bataaxal ki nga xamante ne moom mooy njiit bi ndaxte jàpp nañ ni lycée Mariama Ba bañ ko jëmmalee ci atum 1978 ba léegi am na lu bari lu mu manqué. maa ngi profité si bésu tey bi daal di ñaan nguur gi ñu jox ñu statut bi ñuy xaar maanaam li lycée d'excellence. loolu nag ñu war ko jaarale ci benn arrêté ministériel ñu koy xaar nag ma di ko ñaan jëwrin bi. ba ñu jógee ci loolu nag ñu daal di féexal seeni xol. jëwriñ gi gàlloo njàng beeg njàngale bi nag ba muy jël kàddu daal ñëwaat ci thème bi nga xamante ne moom lañu tànn boole ci di xamle ni dinañ gën a taxawu bile lycée d'excellence. Vous mais tout xam-xam ngaa ngi fii naam nag lépp moo ngi dépendre ci li ngeen di indi lu bees ngeen xam ni mën ngeen a def lépp soxal nag statut lycée d'excellence bi ñi ko gàlloo jox naa leen ndigal ngir arrêté bi ñu daal di koy jëmmal. ñu nekk ay téeméer téeméer élèves ñoom ñi nga xamante ni nag ñoo ngi wane seen i xarañteef leneen lu nekk seen émission moo di topp ci tànku ki ñu tuddee bile l'école